et puis une femme professionnelle que je salue au passage et euh, tamit di bëggee tout le personnel de la 7TV. Mm. am na solo ni ma ko waxee sama ay njëlbéen kàddu euh, bu ñu nee Sida ñëpp ci rajo bi ñu ko xamee 96 la carrière bi la ko tàmbalee. Euh, lan moo lan moo def amuuru rajo ci Sida. bon amuuru rajo lu ko def ci man sama maam. Mm. sama maam moo doon liggéey rajo. et que Sénégal ñëpp xam nañ ko euh, muy euh, ajaratu awa mbuub di wax ne yàlla na ko yàlla xaare àjjana sa maam awa mbuub moo nekkoon duniya doon ci ànd ak dëggeen chimère baabu Euh, moom it yàlla na ko yàlla xaaree àjjana ndax moo tam c'était une mère. ànd ci tamit gañ série donc euh, retrouvaille la bu daan am et que l'émission s'appelait Confidence. Confidence euh, bu ñu koy déglu boobu bas âge. ñu koy déglu à la rajo et puis sa maam euh, euh, doon def ay organisation yu mag ak euh, ñoom gañ série déggeen ci mère Babou mu nekkoon des des émissions thèmes yoo xamante ni que qui parle de l'actualité xam nga yoo xam ne yuy wax ci mbiru social di wax ci mbiru environnement di wax ci lu bëri loo xamante ni que lu yitteel lu yitteel réew mi la donc man sama maam moom moom moom ma dugal ci rajo au fait mais man boobu fekk na maa ngi yor shop musique mm. donc man ci shop musique laa tàmbalee animation marché yor shop musique dama daan jaay cassette maanaam tey bu ñu daan génne album Talla Diagne bu nekkoon Sandaga cantine euh, B 224 kenn daan nu fa jiitu vers 4 heures du matin 5 heures du matin soit Youssou Ndour war a génn wala Omar Pène wala Ismaël wala Baaba Maal euh, ci jamono yooyu quoi jamonoy cassette quoi parce que ñu dañ naan euh, amoon na ay cassette yu daan ay TDK hmm? dana am ay Maxwell JVC ñu dañ naan jënd ay paquetu cassette vierge Euh, am na ñoo xam dañ leen di enregistré euh, jaay leen am na ñoo xam dañuy soxla pré pré enregistré mooy ni nga jënd benn pré nu jaay la ko donc man ci loolu laa démarré euh, di def ay animation ngénte donc da nga amoon amour loolu depuis bas âge depuis bas âge mm-hmm. di def ay ngénte mariage temps boo ngéntee pare de après ñuy jël bagage yi ko ci kaw terrasse xam nga lu ma wax. def wàcce baas def def wàcce baas <laughs> xam nga donc dafa yàgg quoi. Uh-huh. donc euh, ay réception ay collédera uh-huh. xam nga ay mariage uh-huh. ay baalu kër. donc man ci noonu la commencé et mu yàgg trop quoi ma ma tarbiyu ko tamit quoi. waaw waaw waaw. lii lii lii firndeel tarbiye bi mooy amaana au début parents yi ànd yu si mais par la suite convaincre mooy wane ci jom ak euh, fulla ak fayda parce que je suis pas le seul yàgg nga dégg chaque euh, personne moo war a jaar fenn sa yaay wala sa papa ne du ci d'accord mais yow yaay wane di war a tax nu d'accord mooy li ñuy xalaat ci yow ak li ñuy yaakaar ci yow nu bañ ko gis parce que aussi euh, ndey dafa jege doomam baay tamit dafa jege doomam te ku ci nekk ku ne boo sañoon sa doom ndam rek lay am donc doo bëgg mu dugg wala sax mu nekk ci dara lu ñaaw mais temps boobu milieu lan la meloon lu ba dégg naa te sax yóbbu na la ci police pour nga bàyyi ko <laughs> avec elle parce que période yooyu man euh, manqué wu ma dara au fait mm-hmm. man manqué wu ma dara boo déggee manqué wu ma dara mooy ça j'avais tout lépp lu mu bëggoon am naa ko sama papa amoon na moyen sama yaay amoon na moyen mais man maa amoon plaisir animation au fait et que gisoon mooy euh, dama war a nekk ci beneen domaine au fait mais xam nga rek chaque personne tamit ak destin au fait donc euh, loolu moo ko doon permettre nag mu bañ ne du nangu may animé di nekk ci ngénte yi di animé wala may dégg ci ay mariage ñu naan si sa doom ji toj na fi démb woo fii xar na ko moom nag loolu du ko mën a comprendre au fait donc loolu moo doon tax su ma daan ñëw des fois dama daan dóor des fois damay ñëw après ñu pini ma. boobu ñi nga tëj bi fu mu toll euh, pour te dire maa ngi parce que man dem naa ba dem sax ay nekk ba sem sem 1 sem 2 terewul sax damay jóge école sax di daw di topp benn grand bu ñuy wax Jibi Dieng di animé ji ak moom. Mm. pour te dire. Mm. ko topp rek. mais est-ce que yaa euh, a boole jàng bi ak ma dem naa ba animation am personne topp gi ma ko topp ak tarbi wu ma ko tarbi wu ni ma doon concentré wu clairement ci sama jàng euh, mujj ma ko suivre ndax animation man mën naa wax ni. Euh, loolu lépp tamit rëccu ma ko d'une part jànguma ci côté boobu ci période boobu mais euh, presse daf ma jàngal parce que école dafa yaatu euh, man fi ma jaar euh, comme ni ko ñëpp di waxee ku fa jaar takk ban parce que man dama ñëw fekk ñoo xamante ni que ce sont des intellectuels ñoo xamante ni que dañu jaar fu soree sori am niveau bi xam nga lu ne ak li yàlla di def ci yow. mais aussi man dama nekkoon nit boo xamante ni aussi dama tàmm di lire je damay jàng ci yow même bu may waxtaan ak yow ma taax damay jàng ci journaliste j'écoute la presse j'écoute l'actualité j'écoute les journalistes j'écoute les professionnels je lis en même temps sama m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup sauvé et puis ça permis aussi euh, de communiquer avec beaucoup de personnes te aw ma niveau boobu au fait boo ma déggee da nga naan kii xam naa ni am na sax bac aw ma je sais pas bac ma bac. CM2. Euh, ma ko wax da nga naan déedéet te boo ma déggee danga nga naan sida. Uh-huh. am na ba am na loolu li ma ko may nag mooy dama kon di jàng tamit. waaw di jàng tamit di jàng. di jàng toujours parce que euh, dama teel a sama jàng ci animation. Mm-hmm. mais aussi dama koy rattraper. je continue toujours à étudier. Mm-hmm. ba nii maa ngi jàng. Mm-hmm. parce que jàng du wees te aussi jàng dafa war. ci bu ne. saa su ne. nga war di jàng. nga war di jàng dafa jàng. de de de Dunia à la RFM en pensant par Walfadjri mais Sida ci rajo lañ ko gën a gis moom focalisé ci télé lu tax. waaw bariwul li ñu koy gis ci télé. xam nga am temps d'antenne am émission comme tey boo nee Sida ñëpp dañ naan temps booy. temps booy émission rajo boo xamante ni ñëpp xamoon lii. comme euh, genre ci rajo bi aussi ci mën naa ne ba may feeñ télé xale yu bëri feeñ télé ñun Ibrahima Ben Bass Diagne. Mm. daf ñu tàmbaloon <laughs> comme tey li xewoon ci moom la jëkk xewe mm. digital. Mm. escaf la jëkk xewe mooy rajo bi ñuy déglu ba pare di ko gis mosaïque bi daa ko gis Sénégal parce que ci la ñëpp abonné. mosaïque bi ñun chaque matin le temps euh, booy nekk de 9h à 12h à l'antenne en même temps dangay émettre à la télévision c'est-à-dire loolu ñu nu yàgg suivre xam nañ ko du Sidaat moo bañ a def télé au fait man même bu ngeen xoolee wala soit ngeen tàppee ngeen xool am na ay concept yoo xam ne jot naa ko liggéey yàgg na te concept yooyu ma def bu ngeen ko xoolee soit ngeen tapé 5 sur 5 exemple 5 sur 5 bu ngeen xoolee production boobu euh, ba ma ko defee ba tey dafa yàgg te ma am yeneen concept d'émission yoo xamante ni que mën naa ko génne mën naa ko wane. mais aussi yàlla moo dagal ma nekk un homme fidèle nekk sama entreprise gëm sama liggéey te xam nga liggéey am na fooy toll da ngay am fu ngay toll rek ñu jox la la nga moom ñu jox la li nga moom te jox la li nga moom mooy mooy nit bu yàgg ci entreprise yàgg fonk liggéeyam yàgg téye liggéeyam jëkk ci ñi ëpp ñu jëkk am sponsor ci kër gi ku xam kër gi xam ça plus de treize à quatorze ans mm-hmm. boobu la télé ne pas encore née c'est-à-dire damay wax loo xam dafa yàgg. di liggéeyal sama kër. mais tamit gëm sama kër. donc am na yoo xamante ni bu amee. il faut rek maanaam nu ubbi affaire bi rek mu nice quoi. Euh, am na loo bu amee. <laughs> am bu amee c'est-à-dire mooy affaire kër gi yaatu na màgg na. man je vois beaucoup de choses. Mm. mais man je dis rien. pourquoi je dis rien du nit buy tendre la main. Mm. boo xamee sama valeur xam li ma mën. xam li ma capable ah mi mel ni nga gis un Messi nga teg ko ci banc bi ndax loolu jaadu na wala nga gis un Ronaldo nga teg ko ci banc bi est-ce que loolu jaadu na waaw loolu da ngay toog nag du xool un jour viendra waaw parce que aussi àdduna day évoluer man je vais toujours continuer à travailler je vais respecter mon travail comme il le faut man siw ñu bëri siwuñu. ban année nga ñëw euh, RFM c'était le 1er septembre 2003 le jour de mon anniversaire aussi. Mm. le 1 septembre. Mm. la radio c'est mon c'est c'est mon bébé. Mm. la télé c'est mon bébé. parce que fii la la fekk. <laughs> fii la ci lu leer. mooy lan mooy problème bi ba Sidath ni mu nekkee ci rajo bi nekkee waaw dama leen laaj ko ñi ñi gérer télé bi. parce que man loolu laay wax tout le temps yi des fois day mel ni sax day am lu muy niru dam leen ngeen laaj leen lan moo tax du ñu gis Sidath ci télé bi du Sidath mooy ñëw rek <laughs> ne damay taxaw ci télé bi loolu du ma ko def loolu <laughs> du ko def. am ci rajo am nga plus que ça moi j'ai énormément de choses à montrer. Mm-hmm. et on me donne pas l'opportunité de le faire. donc je garde mon calme je fais mon travail comme il le faut du ma xëccoo lu ma gën a nuyu soxla ma ci ko yow. man noonu la mel. mais animation rajo am na différence. yooyu c'est il y a une très grande différence. est-ce que nit mën na mën les deux à la fois fort à la radio et fort à la bu fekkee ni dafa bokk ci sa passion tu vas le faire et puis ça va te permettre euh, d'étudier et puis. chercher de l'expérience c'est ça l'importance la télé c'est du sérieux parce que c'est de l'image dañ lay seetaan dañ lay gis la radio c'est audio on te voit pas mën nga sol caleçon di animé wala solennement kenn du la gis à la radio la télé c'est pas ça la télé c'est du sérieux en fait waay. Euh, comme ni ñu ko waxee sànq da ngay suivre actualité bu baax semaine bi ñu génn yaa ngi dégg coowul alimentaire yi ci benn pour suñu frère bi Dièye Padros génn doon wax que léegi alimentaire TikTok yi ak yooyu moo ëpp que les vrais ba ñu indi ci ay polémique yu bari bari tey Siraat nekk ci milieu milieu bi mu yàgg trop nan la gisee tey peut-être est-ce que animateur ak influenceur am na différence wala animateur est-ce que war na am benn présence bi ci réseaux sociaux yi sa sa non c'est normal tey euh, ñu ngi toll ci une nouvelle technologie. c'est très normal et que loolu lépp c'est important pour. Euh, ki nga xamante ne dafa nekk ci communication da koy soxla parce que tout ça c'est des supports de communication mais le positif au fait je parle de ça tout ce qui est support de com c'est bien de l'utiliser c'est bien d'informer c'est bien de communiquer avec les gens et cetera mais ce qui est important mooy être sérieux et aussi bien le faire. ok. Mm-hmm. am na solo euh, tolluwaay métier bi actuellement ci sa gis ci biir commencé pratiquer ak léegi maintenant gis nañu nouvelle euh, génération bi dugg ci métier bi euh, léeg-léeg boo toogee di seetaan est-ce que gis nga ni am war na am benn relève boo xamante ne après bien sûr il y a des relèves pourquoi pas showbiz dafa yaatu te affaire yi day gën di évoluer après dafay am yeneen génération yi ñëw c'est très normal il faut que muy évoluer man il y a des animateurs que j'adore que j'écoute tout le temps que je suis mais y en a aussi tamit que je suis pas. non lan mooy seen différence yan yan critères ngay gis ba gëm ne kii c'est un bon alimentaire ak yan critères ngay gis ci ki nga xamante ne nee nga xam nga animateur ki ngay déglu question de plaisir la. Mm. maanaam ni ki ngay déglu moom lu mu lay jox loo xamante ni soit daf lay yokkal wala daf lay. Euh, euh, dafa am lu mu lay apporter cest dafa am lu muy lu muy def ci yow te nit buy toog di déglu rajo am rek mu ne ah attends j'écoute Sidath ou bien j'écoute euh, Cheikh Sarr ah ou bien j'écoute dafa am lu tax parce que dafa am lu ñuy def ci xoli yi ou bien tu te lèves le matin saa nga ne attends j'écoute Padros parce que dafa am lu ñuy def ci xol yi c'est important ça li am solo mooy nga am looy def ci xol yi loolu rek moo am solo loo rek kese la y a rien sa bopp loo gis métier la métier yaa koy fulaal yaa koy jëmmal yaa koy jox valeur parce que tey bu yàgg foog foogoon ne ni musique du métier. wala tey musique boo xoolee li muy faj boo xoolee tey li ñuy apporter ci société bi boo xoolee tey ci côté culture li musique indi et tout ce qui est culturel hein, au fait dans le cadre général am na lu ñuy apporter au fait relation euh, yow ak tey artistes yi commençant par Youssou Ndour ci li nga nekk ci këram ak ñi nga xamante ni ñoo ngi bokkoon génération de bons rapports avec mon boss. Mm-hmm. Youssou c'est un patron de presse que je respecte beaucoup. c'est un patron de presse boo xamante ni que bu jox cër. Mm-hmm. parce que yow man nga poser question bi euh, ku ma fonk euh, ku ko fonk hmm, et puis loolu de bas âge. parce que ñun ñëpp <laughs> tàmm neen déglu Youssou Ndour de bas âge nekk xale et puis du ko enjoy ak moom donc bu yàlla dogalee ñu dem ba mu may liggéey ak moom mu nekk sama patron loolu damay xam ni yàlla yàlla moo ko def le destin mais c'est un patron de presse boo xamante ni que euh, bu ma ma bëgg d'abord bu ma jox cër mais aussi bu ma fonk te it euh, c'est une référence boo ko xoolee rek Euh, lu bëri mën nga di ko muñ lu bëri mën nga koy ñafe lu bëri aussi mën nga koy gérer. je parle de ça. Hmm. oui est-ce que am na regret tey ci métier le fait que mu dugg ci bu démb doon tey. waaw euh, ah, comme toog ne bu démb tey dinaa dinaa def leneen. ma ci benn regret au contraire parce que dans la vie euh, lépp looy def rek. Hmm. na nekk sa passion d'abord tey tey lu ma doon jox regret mooy. ma def lu ma bëggul. wala ma dugg ci lu ma war dugg wala ma jaar fu ma war ta jaar wala ma wax lu ma war ta wax loolu lay wax mu nekk loo xamante ni lu may regretter wala ma jëf ko mu nekk lu may regretter mais fu mu toll nii sant yàlla sant Serigne Touba Xaadimu Rasuul waaw waaw waaw bi lan nga ci traversé lu lu metti man de lenn rek moom metti jamono ji ma toll nii muy kunu soof muy koo xamante ni que daf nu yàqal muy koo xamante ni que yal nu yàlla musal ci moom ndax nee na déj suñu contour xool gi frenkulaay suñuy xef muy mbas bi mu ngi yóbbu ñu baax ni du yóbbu famille du yóbbu paay du yóbbu jeunes yi yàlla nu ko yàlla teggil loolu moom metti na ma trop ndax actuellement boo yeewu Sénégal ni ngay gis ci doomu aadama yi ñuy dem boo sañoon duñ fi jógee te mbas bi yàlla moo na ko teg tamit mu nekk lu ñu war a nangu mais protégeons-nous au fait c'est-à-dire loolu tamit c'est important parce que àdduna tey bi ni muy doxee kenn comprendre ko eh. changement climatique yi am li xew ci àdduna li xew ci monde entier bi il faut qu'on soit conscient au fait il faut qu'on réfléchisse un peu il faut qu'on recule pour mieux sauter c'est important bu fi nekk di tëbëkk daal di fecc que yooyu di nekk ci ñàkk fayda yooyu rek ni foog loolu rek moo am déedéet nañuy toog bi xalaat nu àdduna bi doxee jamono jii c'est du sérieux les gens meurent les gens souffrent les gens sont fatigués les gens pou pa pas travailler actuellement personne ne peut pas travailler euh, personne ne peut travailler. Mm. kenn mënut a liggéey ndax mbas bi. Mm. personne ne peut travailler. amul dara loo xamante ne mu ngi ko def ndax mbas bi kon nañ ñaan yàlla mu jóge fii et puis nu nu sécuriser wu tamit ah nu respecter gestes barrières yi mm. euh, c' est important et puis waaw nu nu que li ci des nu bàyyi lépp ci loxo suñu borom rek ah. boo amee kuréel ci sa métier. actuellement yoo du ko du doxee noonu. mooy nu wàññi wax ji te liggéey. travail. maanaam wax tuuti te liggéey te bàyyi maa gi te bàyyi nii laa toll gi te xam ni dangay ngay bàyyi ba noonu lay yewa mm. nga soog a taxaw ne mën yawa yawa yawa da bàyyi ba ñu wax la. pourquoi médecin bi dafa am dafa am ñoo gis ni. non Sénégal c'est ba ci sax ñi nga xaman dañu yor alal. dañuy wane seen bopp ci lépp. seen tolluwaay. tey ki yàlla defal dara ja day foog ni moom moo gën ki amul dara. tey ki toog tey di tendre la main exemple tey bëgg añ bëgg ndékki. tey ki yàlla defal daraja nga yor sa Mercedes wala nga yor sa Bentley wala nga yor sa da ngay foog ne yow yàlla yow la gën a bëgg ko ñoom te gënoo leen ëppale woo leen dara dafa am rek li yàlla def loo xamante ni su juróomi baaraam yi ëppantee noonu la ko doxalee ci àdduna il faut qu'on au fait nga am xaalis nga am daraja nga am lu la yàlla defal mais nu joxante cër c'est important moi je parle de ça mm-hmm. qu'on se respecte respecté ko jox joxoon cër loolu dafa am solo Sénégal muy suñu papa muy suñu yaay muy suñu ay frère muy suñu ay sœur ñun ñëpp Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar loolu moom solo c'est un message très fort Mister Sidat la ñu dalaloon Sidat Thioune euh, ci de A à Z am yaakaar ne waxtaan wi neex na leen ci fi ñu jógee moom ci carrière <laughs> donc ñàkkul ne Sidat am na ay projet à part la radio parce que tey gis nañ fi ñenn ñoo démarré loolu ñenn ñi léegi ubbi leen seen ay télé ñenn euh, lan lan lan la am ak comme comme projet wala boo lan la war a mën a defal tey métier bi gannaaw lu ko métier bi defalee pare métier bi continuité la mm-hmm. yàlla mooy def te yamalewul mm-hmm. am na ñoo xamante ni yàlla boole nañu ñu dem ba ber seen daara mm-hmm. waaye am na ñu ma yàlla boole ñoo xamante ni dama àndee woon démb ak ñoom ba tey ñu ngi continuer di liggéeyandoo et que le meilleur reste à bis bu ne ak lu yàlla di def ku ne am na lu mu bëgg ku ne am na lu muy sàkku ku ne am na lu nekk ci boppam ak ci xolam mais li am solo mooy nu ñaan yàlla suñu borom euh, mu defal nu tawféex muy man muy yow Matar muy équipe bi même ñu yor caméra yi sax bëgg leen ëllëg ñoom yor seeni propre projet donc yàlla ko yàlla mbay noo am demee suñu ay suñu ay <laughs> suñu ay mbir comme d'habitude yàgg naa ko wax euh, sama sama sama passion bëgg naa demee euh, vraiment investir être euh, un patron de presse parce que c'est ma passion mm. mais aussi tamit euh, euh, travailler dans l'immobilier tout ça tamit dafa nekk samay plaisir il y de choses qui est dans ma tête. et du ma sax mën a euh, évaluer euh, lépp lu ma bëgg au fait élevage tamit daf ma neex. il y de chose yoo xamante ni que peut-être euh, yooyu yëpp on aura l'occasion incha allah ëllëg yàlla may nu nu am occasion wala opportunité nu découvrir énormément de choses quoi loolu moo am solo. du tàggatoo te duñu la bàyyi nga joxe benn message ci ñun nga xamante ni peut-être comme ni ma la ko waxee laata ñuy démarrer ak suma ay morom ñi tax ñu yéen ci ñi bëgg métier bi ñuy def tey tey ban message nga wala ban yóbbal ngay tey man mi la seet si yaa mm-hmm. bi mu maasee pour être un bon animateur ci voix bi ci comportement yi parce que si daal tey voix à la radio c'est autre chose tey a nekk un <laughs> euh, conscient il faut que d'abord tu sois conscient nga xam ni euh, Matar qui est chez bokkul ak Matar ki est à nga jox cër say téléspectateurs mooy li ma la sànq il faut ñu joxante cër mooy il faut qu'on se respecte te loolu ça veut tout dire nit nga nit boo yaroo dañ ne boo yaroo ma ci tàngal yéey sa gaay waaye dafa am lu ñu wax leneen ni soo yaradikoo yaa ko yéeg tamit mooy tout le temps dañ wan ne àdduna côté positif dafa am côté négatif dara ji bu la yàlla mënta defal rek boole ci yar boole ci teggin xamal ni li nga doon yàlla moo la ko defal muy yow ma taax muy keneen ak keneen nañ joxante cër nañ bëggante nañ fonkuwante mais aussi koo gis nga xam ni moo la jiitu ci mbir mi respecté ko ndax Sénégal noonu lay doxee Sida daa mel daa may booy booy fontoo nag. parce que non man man benn booy du ma fontoo xam nga lu tax. Euh. xam nga lu tax benn booy du ma. fontoo da mel ni sa bureau da mel ni muy dégg am ñooy dànga man je suis pas dans ça c'est que Sénégal. je ne personne man du ma genre ñuy waxante di gaarawaale du ma genre yooyu man lu ma nit wax man man dama koy régler je n'ai peur de personne hmm. yàlla defal na ma am naa fulla am naa fayda man kenn du ma yab ma yabuma kenn tamit je respecte tout le monde. du ma dépassé kenn du ma wax nit tamit dara lu ñaaw. ma je suis taalibe ci Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul te saa su ne damay ñaan Serigne Touba Xaadimu Rasul mooy ma ma doon taalibe ma loolu laay ñaan. parce man des fois ma ni laa sax day dis si man. xaw ma ndax est sama taalibe mat na am déet. moo tax lépp lu may rafet dafa am ma koy teg. yabu ma kenn ma kenn yab dépassé wu ma kenn ma kenn dépassé man saa ma dafa am ma yàlla bindee. ku mën a kaf la ku ku xoromu mais ku pànk la. sax xam nga Sénégal. Uh-huh. au fait. mooy li ma naan li ma neex sànq Sidath qui est à la radio. Uh-huh. ou bien Sidath qui est à la télévision c'est différent avec Sidath qui est chez lui. Uh-huh. il faut nii méngale yooyu nu xam ni sida bu nekk ci rajo bi ça pas dire que gis ci mbedd bi rek nga foog ni kii ci rajo bi la nekk dafa la war a animer ci mbedd bi non c'est différent am na loo xamante ni que c'est du sérieux mooy li ma naan joxante cër mais man lancé wu ma ay message lijjantuwuma kenn dama ne la damay siw xale yu bëri siwuñu damay am tur Sidath Thioune man ba may liggéey rajo xale yu bëri liggéeyuñu rajo xale yu bëri télévision yu bëri existé wuñu xam nga kooku li mu lay wax ku dugg rajo 96 bi feeñ télé 98 xoolal foofu xoolal foofu ñaata rajo ak ñaata télé moo amoon Sénégal man je suis pas dans ça tëbu may bay daanu daw ma bay daanu donc li am solo rek mooy nañ joxante cër c'est que les gens sont fatigués nit ñi dañ leen di sonal nit ñi ni ngi nangu seen i alal nit ñi ni ngi leen di rey nit ñi ni ngi leen di agressé dafa am yu gën a am solo man yu ma amoon solo yu may wax y a des yoo xamante ni que tey ni ngi ci lii suba nga yaakaar ni dañuy war a def lii ñu defaat leneen Sénégal chaque jour heure boo yow dangay ngay gis ay surprise waaw booy de loolu laa lay wax c'est-à-dire quand tu suis euh, doo fi nekk di tal ay détails mm-hmm. ma je suis pas dans des détails mm-hmm. non non man ay détails du ma waxi xale day am waxi mag dafay am. il faut ni xam ne bu ci nekk ban nga koy jox. monsieur Sylla ça a été un plaisir ñu dalal ko ci de A à Z moom lañ toogaloon ngeen dégg waxtaan bu solo bi émission bi tey